jërë ngeen jëf mbokk yi xam ne yéen a tàmm di seetaan seen site internet mourides point info ñoo dellu si di leen présenter cette émission asrar tey ñu fekk si Serigne Khadim Fall moom Serigne Darou Assane fii ci xam ne mooy Darou Khoudoss ñu nar a seq waxtaan kon duñ def lu bàyyi Serigne bi mu présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi maa ngi leen nuyu bu baax ci seen tur ak seen sant waaw man jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàgg ak wér. maa ngi ñaanal sama buntu ci sëñ Tuubaa muy sëñ Seex Xatar moom sëñ Bay Fallou maa ngi koy ñaanal yàgg ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal maamam sëñ Daaru Asan yal na ko suñu borom may fekk ak tal ba mu defee ko ni mu ko bëggee maa ngi ñaanal sëñ Abdou Xaadir Njaay mi xalifa sëñ Daaru Asan moom it yàlla na ko suñu borom yàggal ak kilifay sëñ Tuubaa yëpp. téléspectateurs ah, xam ne ñoom ñu seetaan. sëñ Xaadim ñu gis nga nekk ci benn milieu bu nga xam ne dañuy muy ci niveau wàllu basra. bi nga anam ah yëngatu na sun borom mo dogal mu xir ñu ci manam ci ñu bari manam ñu gis ñu deñu ci doylo maanaam ñu leen koy wutali fu ne ak di ko lijjantil teewul ñu boole ko ak suñu gëstu diir bi la ñuy nekk ci daara ji di moritu maanaam ba suñu borom dogal ñu am ci aw maanaam di ko defal ay nit maanaam maanaam suñu borom mu dogal ñu koy gis waaw loolu daal ñu dem ci it ba am ci ndigal dégg ma suñ kilifa ñu teg ñu ci aw yoonu leer naññi maanaam ñu yor ñu ci dëgg ak jëfe ndigal ak bàyyi itam. Euh, jërëjëf sëñ Xadim ñu doon laaj tey ana nga xam ne que moom nga gën ràññeeku ci yëngutu boobu tey bu ñu doon laaj ñenn ñi mën na expliquer la ana loo wax. ah loolu moom ba ma laajee naa ci sawar naa ci sawar bu baax a baax ndax maanaam lu mel ne wàllum maanaam ay der bu dëgër maanaam muy tul maanaam maanaam muy tul ak ndamal weñ maanaam ak galaaj yu lay aar nga xam ne lépp loo dugg maanaam mën nga caa génn maanaam mu aar la ci lépp maanaam waaye waxuñu nag maanaam nga dem jëli fi jàmbur dégg nga ma nopp nga ñëw fas yéene nañu aar la déedéet loolu taxu ñoo jóg maanaam ku dox ci siraatal mustaqim maanaam kooku la ñu sawar a jëflanteel dëgg-dëgg. Euh, ndax suñu xaalis am na ci saafara. waaw loolu moom am nañ ci saafara maanaam luy dolli kàttan kii maanaam luy dolli kàttan maanaam ki nga xam ne maanaam mënoon na ba ci yàgg mënatut maanaam loolu am nañ ci ay tegtal am nañ ci ay tegtal bu baax a baax. xaalis ba tey waaw loolu bu dee lu mel ne wàllum wët rek maanaam ci ay kii la gën a gaawee cangaay maanaam wala bu dee ko bëgg palaas maanaam wala bu dee ko yor palaas maanaam mu bëgg mu dox maanaam fu nekk xéewal di fa jógee maanaam wala nit dégg ko maanaam sa a kii dama jëflante ak moom ci ak séegul loolu it am na ci ay tegtal bu baax a baax. waaw loxo ben am nañ ci pexé bu baax baax sax waaw ci lu melni ay jaaru xaalis nan koy def ay jaaru xaalis yo xamna ay ceen lay andal hmm. xam naa loolu danañ ci gëna ñew ci kanam ki manam wala ñu gis ko ci kii ci écran bi waaw way am nañ ci ay tektal bu baax baax dal comme ci walu wàllu ubbeeku boobu yan yan bëgg sax seen waaw ci wàllu ubbiku man am na ño xam ki mo leen ub rab mo leen tej manam wala manam ki ci lu melni umu maanaam umu li ci gën a gaaw moom nga dindi ko maanaam maanaam suur moo ci gën a gaaw après ah, nga soog indi maanaam ay sangu maanaam am na ñoo xam ne ubbi gu ñu ubbi il faut que maanaam ñu suuru maanaam moo ko mën a dindi maanaam buñ suuroo ba noppi nga soog nañ wutal ay maanaam ay sangati bay rek maanaam ñu soog a ubbi ko maanaam nit ki mën naa ubbi maanaam nga ñëw defal ko maanaam ay sangati bay rek maanaam ca munta deñ il faut que day suuru muy soog a deñ waaw mhm. kon ci wàllum der bu daa ah, ah, waaw loolu boo ci laajee dama ci sawar. wàllum der bu dëgër moom ah mboolem ku nekk suñ Tuubaa gii ah, loolu xam nga ne am naa ci ëpp cër bu baax mboolem ku nekk tubaax xam nga ne am naa ci ëpp cër bu baax a baax ragaluma ko kii korosante fenn même ba ci kilifa yi ci dëkk bi. waaw mais kii maanaam lu weesu loolu am na yeneen xeetu ndomba yoo xam ne buñ duggee ba ci biir boo bëggee ma gën ko leeral rek ma leeralal la ko bu baax a baax. ñëw ci ñëw ci. waaw am na benn kii boo xam ne lay am am na benn ndomba boo xam lay am ki ñetti gaw maanaam boobu ay njariñam maanaam bëri na lool maanaam li feeg mi ngi sa ndigg yi dégg ma dem kaso dégg ma loo dugg génn ci foo dem déet ci kàttanu yàlla maanaam doo histoire. maanaam waaye waxuma ne kee xam ne maanaam day dugg ci ay loxooru jàmbur maanaam agsi di ko wut maanaam di dem di kii maanaam loolu ñun taxuñoo jóg danoo fas yéene maanaam dox ci ak jub ñu jàppale taalibe yi dem Sëñ Tuubaa yi ba fu waay nekk soo ko mënee am maanaam mu doon lu lay jariñ waaye li feeg mu ngi sa ndigg bu dee ci ak njub ngay dox foo dem da nga si lépp loo yëngu bu soobee dañ ci mujj waaw ndax sëñ xaar bi moom nan la taxaw bayre ah bayre mu ay façon façon la bayre am na ay noom may takk maanaam am na ñun ci sangoo fukki fan ak ñeent am na ñun ci sangoo juróom-ñaari fan maanaam bëri na ay maanaam ay façon façon ba nga xam ne si ne maanaam ñu leeral ko dem xëy na du ci xaj ndax boo nit xam ne am ay jafe ndax ko ndax buñ dawoon ñëw am na lu gaaw kër lu kay loolu yi dinaa ci sawar même ba ci ndombay tulin génn léegi am na ndomb gi am ñaar fukki petaaw ak ñeent ak juróom-ñetti gaw googu feeg mi ngi ci ndigg kenn du la ramasse kenn du la jox kam kenn du la jox convocation loo dugg génn ci waaye nag maanaam fa ma ca gën a àddoo maanaam ku jox convocation soo ñëwee ci man fekkee sa may na la ma dama naan la xotti ko bu la sa mayut demal nga wuy ji laa leex bu soobee Sëñ Tuubaa da nga añ si wat ah loolu moo am sa lu may commentaire en tout ñi ma ko séqal maanaam buñ ko gisee danañ ci xam lool bu baax a baax incha allah waaw. ndax sëñ di jaay toogaay bi yàgg na ndax am na pexe am na ci pexe. waaye nga xam nga loolu sëñ bi dafa doon ay façon <laughs> daa doon façon yu bëree bëri man ngaa gis koo xam ne ay góor a koy seq ñuy jamaale comme ça yéen boo dikkee wut ñu dàq la man ngaa dem ci sëriñ daane man kay kay dama faa dem man nga ñu dàq ma waaye maanaam dina xam ne maag moom la il faut que dinaa ko dëj maanaam kooku li feeg maanaam kii boobu maanaam fekk li mu ko defal baax na ñu dij ko feeg woon ko du am jëkkër bu demee ci sëriñ di maanaam di ñaan lu ngir am jëkkër nag maanaam li feeg loola dindiwu ko moom day sangu ba soxna waaye du deñ loolu nag am na lu nit bind ñu boole ko moom maanaam su ko tegee ci ab maanaam ci ab taal tàngal ko ba yaramam dégg ma mu ñeme ko moom bu ci sangoo mu toj waaw bu ko defee cin tàngal ndox mi ba yaram ñeme ko tey ji soo ko sangoo dégg ma mu toj su noppee nag muy soog a mu soog a jubli ci lu ko may jëkkër ay sangoo beere wala lu meneen ay xeet yu mel noonu waaw. léegi umu bi nekk wax sànq léegi. Mm-hmm. ñu gis ne bu kii bi jafe na ba léegi te mag di di a jox ñi bu ñu fayee suba def ko mën a joxe dépense. waaw moom wa umum mom ay manam li koy joxe dafa limbo ay agaj xam nga gone léegi moy moytuutun dara waaye dina ji xam nga gone moy moytuutun dara li xam ne mooy indi um na lim ko ba ñi koy def xam ne lii baaxul ñu ba manam um mom manam manam li ko gëna a indi muy nga sekk ak soxna jambur lolu loolu na ci li gëna umé nit ku ne ko war a ko muy ku ne nag ak ku mën di doon waaye um nag dafa nekk ay façon façon maanaam comme ça kii nga wax maanaam maanaam ku xëy maanaam nga bëgg dépasse wala dara ah loolu mi alam nasara mën na ko alam nasara saa boo jullee ba noppi nga def ko juróom-ñaari yoon ma suñu borom day yewanal lépp day yewanal lépp waaw ñi nga xam ne dañuy dégg Serigne Khadim Fall ana ban message nga leen di jox ak foo leen jox rendez-vous xam ne ku la bëggoon gis bëgg a jokkoo téléphone wala mu bëgg a déplacer pour ñu fekk seen ana loo koy wax. ah waaw ah waaw Serigne Khadim Fall ngi fii moom di jëfe ndigal da bàyyi tere maa ngi dëkk fu ñuy wax ci kër Nitu Gédé boo ko rombee maanaam jëm mel na maanaam ci côté ISB yi waaw ku ma bëgg a jot sama numéro mooy 77 776.

taalibe bu morom bi xëy na ak jàppandal dana ko mën a am incha allah. ah man nag damay jàppale taalibe Sëñ Tuubaa yi bu baax a baax. sëñ bu baax <laughs> dama leen jàppale bu baax a baax dama ci gaa yi xam na nañu ci dara maanaam ku ko gis. Hmm. waaw da nga xam ne damay damay dox ci dimbalee bu baax a baax. waaw maanaam maanaam maanaam ki nga xam ne ki nga xam ne mooy bunt ci suñ daara maanaam moy suñ bund ci suñ daaroo san mboolem ko ko xam muy suñ seexaatan mooy suñ befalo manam ci yirma la lay dox ak ko meuna dimbi dimbali nga dimbi ko ci yalla dong tax fofu rek mën dox doxal moom wut lenn lu dul ku gis mu dimbi la ci yalla tax xam ni wut ak talib ak talib kenen kooku nak manam kep kum yar ko gis war nga ko gis rek war nga ko meuna dimbi comme période bi nek ni ñepp ñoo xam loo mi période période ñoo xam ni li dess ci walu julli ndogas ci soreetu. Mhm. ñi sant ñaŋal ñi ñi sant Fall nekk xam ne. ah déedéet moo ko ko wax. xam ne ku sant jàng bu bu jëndee xaram ñu ko tuxale. Mhm. Ah, si si xarit loolu yow yow loo ci ah, loolu am nañ ci ay tegtal am nañ ci ay tegtal yu am solo sol yoo xam ne maanaam leeral ko xaju fi. waaw waaye ah yaatu na loolu daal moom galaaj ak liñ ci liggéey bari na lool. tey ji am na yeneen galaaj yoo xam ne sax. moom du jabot, jabot waaye tey jii boo ko ci saal bi maanaam ku ci jël maanaam dootu baye ti jël manam xam nga loolu amul ñariñ manam ku melni jabot jaboot wuru yor amna yo xamne ci nit ku la satchal feñ ku la satchal force mom dang ko fe mom day wéro waaw am nañ ci ay tegtal yu bari daal yo xamne leral leeral ko xaju fi waaw waaw loolu am nañ ci safara manam ki nga xamne maanaam ki nga xam ne boroom këram da koy soxla mu bañ am nañ ci saafara loo xam ne maanaam tey buñ ko liggéey ba pare tubéy yi kiyam la koy booleel maanaam maanaam kii njiit laayam tubay waaw njiit laayam la koy booleel fóot ko solo ko bu woowee moom dootu aayati boppam boroom këram am nañ ci ay tegtal bu baax a baax. comme li ñu ci ci biir kër yi ba muy amee jéer. Mhm. nga xam ne kër gu jaxasoo. kër gu jaxasoo. kër gu jaxasoo. waaw loolu it am nañ ci tegtal bu wér sax bu wér keng boo xam ne tey bu waa kër gi añee ba pare maanaam li ruus ca nàpp ba soo ñu ko indilee ñu boole ko lan koy booleel moom su ko waa kër gi lekkee moom force danañ juboo ci kàttanu yàlla danañ juboo ñoom ñëpp danañ doon benn incha allah. Mhm. waaw kuy xëccoo dara <laughs> waaw kuy xëccoo dara maanaam nga bëgg caa jot manam loolu ay ciangat lay don yo xam ci si ne maanaam ci kaw mool nga yek manam wala ci kaw manam ci kaw terrasse manam boko ko sango doo ko sangoo ci suuf manam wala ko bëgg daraja manam wala ko xëccu mbolo am nañ ci ay tektal bu baaxa ba baax. Mm-hmm. aw waaw loolu lu dindi ñam dama ciy joxe ay leral bu maanaam loolu am na doole am doole goo xam ne maanaam tey jii jigéen ku ëmb bu am benn weer maanaam wuru koo noonu mboolem kun koy defaral dañ laaj ba xam tool na fenn wala toolul fenn même bu lekkee ñam wala lu mën di doon moom bu ko lekkee moom ci kàttanu yàlla day génn incha allah. kon ah, waaw sant sëñ tubaab bu weer a wér waaye di sant sëñ Daaru Asan kii dama ni gërëm nag. sëñ Cheikh khatar mom suñ bay foolam mooy sama buntu seigne Touba moy sama nday moy sama bay moy sama lepp sant na ko bu wéré a ci duma def lenn lo xamné ci si ne dem duma ko def ci ndigalam ba ci li rek une fois que dama ci diso ak mo waxtan ci ak sama wajur ak sama ñepp ak ci sëñ mi ma ak seigne Mbàkke mi seigne Mbàkke ci jang ah mo nga sant fal <laughs> ma ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di seen ni yàlla na ko suñu borom jëmale kanam loolu ci barke suñ daaroo sant waaw maa ngi sant suñu waa kër maa ngi sant sama soxna Fatou Loum ak ñëpp rek waaw sant naa leen bu baax a baax waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon topp seen euh, émission asrar ñu seqoon waxtaan ak sëriñ Xadim Fall bu sëriñ Cheikh Xadar fii ci Darou Khoudoss gën nga euh, euh, leer muy fii ci biir fi nga xam ne que ni mooy. Daaru Ndiaye jox na moom waxtaan ci wàllum li yëngutu bi mu yëngutu muy dimbali taalibe Serigne Touba yi ci jafe-jafe yi ñu am ci xam-xam bi ko suñu borom dénk kon lañ def lu dul di ko jaajëfal di leen jox digg daje ba beneen yoon ci beneen numéro